yëkkati naa Touba coow li coow li mooy tali baa ngi jeexal nit ñi turbine yéen kaay naan man ñaar fukki bakkan ak benn rot nañu tali senegal gi ci lu matul ñeent ci ay fan démb rek démboo njaay fukk ak ñaar ci ay doomu aadama faatu nañu ma nga am ci accident bu metti boo xam ne ñaari woto ñoo daje diggante ngaay mexe ak Kébémer les ko naan kon juróom ñaari blessé grave am na ca vox populi naan kon en attendant fukki bakkan ak ñaar rot nañ ca camion ci boppam moo dar dari di dal ci kaw benn minibus moom camion bi moo doon jéem a doublé ñaar ci woto ca la ak minibus bi faat ña fa nekkoon ñëpp daanaka Mokhtar Faye directeur exécutif bu nouvelle prévention routière di naqarlu accident bu metti bi am ni ki démb ministre bi El Malick Ndiaye joxoñ baaraamuk tuuma ñàkkuk yar gi nga xam ne conducteurs yi moom la ñu nekkee ci tali bi naan téeméer boo jël ci l'accident yi am ci réew mi juróom-ñett fukk ya ñun nit yi ci boppam ñoo koy provoqué loolee lan mënta nangu ñuy faat askan wi xamle na ni mesures yi moom des na ko jël ngir code de la route bu yees su del si ginnaaw tribune yéen kaay ko en attendant askan waa ngi jeex ci tali bi gannaaw ngaay mexe ni ki démb fukki bakkan ak ñaar bam mu forotee benn camion faat na ñetti xale yoo xam ne amagunu juróomi at ca Saraya alxames gii ñu génn rek juróom benn ci ay bakkan faatu nañu ca ndulu majji diggante Kaolack Tamba waaye tam Bakel ay choc yoo xam ne ay fukki fukki bakkan moo cay rot te loolee atu yàlla sàkk day sakkan lool ca gox ba ca Louga moom diggante Louga ak Linguère atum 2023 bii rek yéen kaayub dee média bi naan maan ñeen fukki bakkan ak juróom rot nante ci l'accident la bàyyeekoo lépp bàyyeekoo ci ñàkk contrôle woto yi vitesse woo xam ne dañ koy daw ba maar day taali El Malick Ndiaye ci Vox Populi naan kon ba ci ñun rek ñun daal ñooy provoqué accident yi fayal laaxu yéeni kaay bi dee média bi naan man chef d'état major bu général des armées fatt na naqaru ancien militaire invalide yi diggante seeni pension yun bëggoon ñu xoolaatal leen ko waaye tam seenuk faj ak yeexte ci yenn ci ay dossier taxawani nan ca ndax sem gaa ci boppam mi ngi leen di utal saafara yéeni kaay bi dee bi naan man de salak man ba tey ma ñëwal la ci ministre Moussa Balla Fofana ma demoon ca bande de filao ya yéen kaay bi naan maan wisit la wala opération commando te naan maan président Bassirou Diomaye Diakhar Faye wane na ak am amam le soleil yéen kaay naan maan moom président day nee na fàng la mu am salaire goo xam ne daanaka jege na juróomi million denc goo xam ne ma nga ci juróomi téeméer rek ñaar fukk bennub kër ñetti terrain bennub woto bor yoo xam ne toll na ci ñaar fukki million ak juróom liyee am amu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye lee fa yéen kaay naan kon BDF day amul président bu am bor la nu yore waaye président boo xam ni riche ndax këram nga rek ma nga ca ñaari téeméer juróom-ñaar fukk ak ñeenti million yu teg diggante terrain bu jar téeméer ak ñeent fukki million ak tabax goo xam ne def na ca daanaka téeméer ak fan weer ak juróomi million salaire boo xam ne ma nga ca juróomi million bor yoo xam ne mi ngi toll ci fanweer ak benn million terrain bu ñeenti hectare boo xam ne investir na ci ñeent fukki million ak ñeent wotob occasion boo xam ne ba mu doonee candidat gisoon nañ ko ci déclaration de patrimoine boruk fukki million bu mu ne woon am le na ko nee na fër kenn gisu ko vox populi naan kon patrimoine bi kay dafa mel ni day soppeeku diggante candidat Diomaye ak président Faye le quotidien le quotidien naan kon ci déclaration de patrimoine ba moom président Diomaye ma ngay affiché wu ay ressources yoo xam ne ma ko amee ci avantage fonction libération yéen kaay naan kon en tout cas la mu digoon sénégalais yi def na ko nee woon na leen naa leen xamal sama am-am xamle na ko vox populi jébbal kàddu Serigne Mbacke Ndiaye mu ñëwaat ci élection législative yi nga xam ne war na ci ni saraax diggante ànd gi mu ànd ci doxalinu président Diomaye waaye tam élection yoo xam ne war nañ ca tàbbi du yàgg critique yéen kaay naan man loo ci mënti déggit gatsa gatsa gi moom mi ngi mel ni tulleeg maale ci réew mi corrigé nañ ko te saf na sàpp kaani yéen kaay bi naan man ay opposant la yoo xam ne fi mu ne ña ngay delloo Pastef seenu bor ñetti weer yu njëkk yi doxal nan nam leen neexee waaye fi mu toll nii nag janoo nañu opposition boo xam ne du bàyyi dara te du maye dara marquage à la culotte daanaka la amal ci réew mi diggante acte yeeg gestion bi discours gu ñëw ñu firi ko opposition boo xam ne naru may jàmm président Diomaye akub gouvernement am critique naan maan bu nu wootee rupture opposition bu bees bi gisewu ko noonu ma ngay xaar benn fa xastalu mu tëb ca te ci tëb googee mënees naa yi ki loxool njiital gëm sa bopp lee jàmbaat bugaan géy dani ndax lu gaa wax dana ca tontu te fi mu toll nii daanaka jokkoor maajoor jokkoor leel gi fekku ci Ousmane Sonko ndax njiital Pastef xam na ne duñ ko may dara waaye it sujet yi nga xam ne ay polémique la daanaka daf leen ko bàyyee di leen sànni ay kàddu gaaya ne ca moom it mu wëlbatiku ne ca la mu nekk Walf Quotidien naan contention de opposition boo xam ni burux lu gàncey mel ni tulleeg maale ku nekk fi mu toll nii nag yaa ngay burux lu bëgg jëm ca kanam jiite daanaka opposition bi waaye tam réew mi ku ne nga xool koo nar a wéer sa mbagg jeu d'alliance ak positionnement gi mi ngi mel ni tulleeg maale ku nekk nag di science koo war a àndal yéen kaay bi nattable ko PM Ousmane Sonko Malick Gakou Khalifa Babacar Sall Mamadou Lamine Diallo Bougane Gueye Dany waaye tam Amadou Ba waxtu waaw libération yéen i kaay xamal ma ni mangaan gaa ngi mel ni tulleeg maale ci réew mi ñeenti téeméer ak ñaar ci ay candidat yoo xam ne dañoo bëggoon dem Barça wala Barça teg nañ leen loxo ca Saint-Louis wàññi leen le regard naan kon ñaar ci ay gaal lañu jàpp benn bi def na ñaari téeméer fukk ak ñett benn bi def daanaka ñaari téeméer ñoom ñëpp nag bëggoon dem ca gaal ga mangaan yi Pape Modou Fall directeur de l'emploi ci la mandat yéen i kaay jébbal ak document askanuk Sénégal waaye tam jébbal ab document président de la République Diomaye Diakhar Faye te Sénégal réew la boo xam ne amul moyen ngir téye xale yi ci réew mi ñaar yi daal lañu ñu am renforcer frontière maritime bi ba fexe ba nu jéggi waaye tam activer service civique national yi ngir sensibiliser xale yi dem ci seen zone de départ yi wax ak ñoom ngir baab leen ñu toog lépp loo xam ne xëy la te mu amoon ci réew mi ñu fexe soo garder ko laataa nag ñuy taxawal politique boo xam ne bu yees la ngir xëyum ndaw ñi taxawal programme boo xam ne Sénégal koy bokk ngir soxna yi mën a demal seen cëggal guy chômage ñu mën koo wàññi ci réew mi ndax boo jooyantee dund soxna yi xale yi ci bëri dinañ toog ndax seen yaay yeeg seeni sœur yi lan mënta muñ seenu nekkin ni mu méttee ci réew mi nañu xeex ndool gi xeex mangaan gi condition de vie yu métti yi xeex ko mooy xeex mangaan gi ndax wàññi xale yi pam Pape du Fall ne taxu leen toog du ñu dellu ci dëkk dëkkaan yoo xam ne lañ fa bàyyi woon lañ fay fekkaat muy amul ndox bu sell amul post de sante amul courant te tey jii amul sax daanaka internet libération yéene kaay naan man coow la lañ cay wax Malal Diallo Pitti responsable APR ca Jidda Caaroy Kaw ma ngay ñëw ca xale yaak seenu coono ci seen bakkan yoo xam ne ñi ngi koy ñàkk ci màngaan gi te gouvernement gu bees gi nag war ca indi saafara balaa làmbaay di ñaaw leneen lu mu indi ay kàddu moom moo di Tuubaa ga nga xam ni ma nga fees dell ki ndox te ñuy waaj màggal ten war ca indi saafara daar daar gannaaw Tuubaa kaw la git ma nga fees dell ki ndox moo ne day ña ngay tam plan décennal bu président Sall bi te moo tàqale quartier yu bëri ca Jidda Caaroy Kaw ak ndox di waxa di ñëwal ci lii usine Twyford ba nga xam ne moom lañuy defaree karo fii ci Sénégal jaxaan na ma daanaka la fa liggéeykat yi di dund am na ko fa ñàkkuk baaraamam ñetti waxtu bàyyi nañ ko fa te fajuñu ko liggéey boo ànd ak pression rythme gu liggéey boo xam ne daanaka kenn attanu ko ba bëccëg a guddee ci yam duñu noppal lu doy accident de travail yi bari ba mar day taali seenuk salaire baaxul misère am fa ay CDD la ñu dëkkee ak ñoom daanaka dunduk jaam la ñuy dundloo askanuk Sénégal fii ci réew mi ñu ànd caag nag ñu ay chinois noir di sénégalais yoo xam ne ñooy ànd ak chinois yi di toroxal sénégalais yi tribune sport naan maan boo moytul CNG foofu lay mujjeeg mbër yi de ndax mbër yaa ngi naqar lu daanaka métit gi leen CNG di teg Balla Gaye dëne lu ëpp benn million CNG dagg na ko ko ndax dafa tëb mur Ama Baldé taal sondeel ñàkk ay million ministère de sports mbër yi woo ko ci jub jubal jubbanti nga xam ne te CNG lañ ko war a njëkkee ndax mi ngi jeexal mbër yi ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm